salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu dañoo gis ne Sénégal yàlla da koo may loo xam ne lu bëri mbayu ko réew yu bëri te réew yooyu jiituñu bu dee ci mag ñu baax ak seen dono am na ñoo xam ne ñoo leen ko ëppale junni yoon te raw nañu bu dee xam-xam am na ñoo xam ne ñoo ñu ko ëppale ñoo leen ko junni yoon te raw nañu bu dee ndox ak gàncax ak xale yu taxaw bëgg liggéey ñoo leen ko ëppale te raw nañu mu mel ne kon réew mi ñun liñ ci xalaat rek la parce que xalaat rek moo fi nekk mu mel ne dafa xaw a tënku xaw a sax ñu xaw koo ca tënk ci yenn fan yi mel ne am na loo xam ne ci askan wi dafa xaw a fasu ñun nag ci jàmm ak salaam ñu xalaat ci suñu gis-gis ne war nañoo lëñbët loolu ba fa tënku ñu tinki ko fa jatank ko ñu jatank ko la fasu ci askan wi aussi ñu fecceek ko ngir réew mi jaabal ba mën a xelu ñu bëgg na nga ñaanal ci Mbàkke ñaanal ñu ci ndax ëllëg si biir ñu mën a taxaw ci réew mi liggéey ba ci dëkk bii tim ñu def ci suñu cër ci ngeen ko bëggee ba mu nekk mbégte ci yéen ak ca suñu maam Cheikhul Khadim li ma ko jeexalee nag danga ñoo jàngal damay dañuy dégg nga naan ku dem nga dem ku demul nga dem ma ne boobu sax xam naa ne dañu ko war a may ñu def ko parce que wax boobu rek jàngal na lu bari si Sénégal kan mooy sëñ Touba ndaxte yéen ñu jàngal ne sëñ bi ba muy dem yàkkamti woon naa dem kenn gungewu ko bi muy ñibbisi ñi ko doo indi yàkkamti nañ indi ko ci ñàkk ak pexe. nga jàng ci loolu nag boo waxee li nga wax mooy fa nga jëm ci yoon wi sëriñ tuubaa xam nga ko xam nga fa nga jëm xam nga nag fay demee xam nga nang fa kañ kañ nga fay dem kon ragaloo ca wéetaay jàngale boobu mën na sëkk kon yàlla na yàlla gën a dëgëral sa cër yàlla na yàlla guddal fan wi yàlla na yàlla gën a barkel ñu ñëw fii nag di taas ci bés bi li nga xam ne moo fiy yiw ci barke sëriñ bi ñu seddu ci ñun it ngir mu nekk jaruñu réew mi jaam cofeel ci yow nag ñëpp nag buñ sañoon ndax man may wax ne sëriñ bi moom koo gis rek kontaan <laughs> dangaa soppalu ñëpp bëgg dala gis bis bu jot waane comme loolu nag mënuñu ko am ah te bis bi di bis bu mag ñu ñëw rek tàllal suñ loxo ñaan yal yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf dégg nañ kàddu yi te rafetlu mbokk taalibe yi sëriñ bi dafa wax ne jërëjëf sëriñ Habib Sy dégg na kàddu yi nga xam ne sëriñ Habib yëkkati na ko mu nekk kàddu moo xam ne mooy kàddu mbooloo mi. mu ne te kàddu yi sëriñ bi nee na rafetlu na ko lool. dégg nañ ko itam. mu ne maanaam bi mu ne dégg na it maanaam bu baax a baax. yëg nañ ko bu baax mu ne yëg na ko bu baax a baax. soññ na nu it. mu ne soññ na ko it. soññ na nu mu ne soññ na ko itam. ci lépp lu jëm ci lu baax. mu ne ci lépp lu jëm ci lu baax. kon bala ñoo wax dara sant. mu ne kon bala wax dara dañuy gën a sant. ci kaddu yi ci yi nga xam ne sëriñ Habib si yëkkati na ko. dégg nañ ko bu baax a baax. mu ne dégg na ko bu baax a baax. mu ne sëriñ Habib sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di nuyu mbokk yu baax yi nga àndal. di leen gàttandu ak cant ak ngërëm. mu ne di leen gàttandu ak cant ak ngërëm. xam nañ yitte ji leen yëkkati. mu ne xam nañ yitte ji leen yëkkati. ak jéego yi ngeen def. ak jéego yi ngeen def. ak jataay bii ak jataay bii. xam nañ ko bu baax. mu ne xam na ko bu baax. cant gu rëy rek moo ci moo ci moo moo mooy jóge ci man. mu ne ak cant gu rek cant gu rëy rek mooy jóge ci moom. dangeen ngeen ma euh, defal loo xam ne. mu ne da ngeen ko defal loo xam ne. dootuma ko ma fàtte mukk. mu ne dootu ko fàtte mukk. dama leen woo ci lu daf leen a woo ci lu baax. woo leen ci jàmm. woo leen ci jàmm. woo leen ci yitte. woo leen ci yitte. ngeen wuyu ngeen wuyu ko ci. wuyin wu rafet mu ne wuyin wu rafet. muy dëgg ci muy dëgg ci yéen. loolu mu ne loolu dootu ko fàtte mukk. na ngeen xam ne loolu. mu ne waaye na ngeen xam ne loolu. bor bu ma leen amee bu ma leen ameel mu ne na ngeen xam ne loolee bor bu mu leen ameel la moom. waxul sax yéene ju rafet ji. mu ne waxul sax yéene ju rafet ji. yi nga xam ne moom ngeen fi fekk mu ne yéene ju rafet ji nga xam ne fekk ci moom. waaye loolu dama koo jàppee bor. mu ne waaye loolu daf ko jàppee bor. bor bu rëy. bu rëy. bu ma leen ameel bu mu leen ameel. boo xam ne itam boo war a am jom la. mu ne bor boo xam ne boo boo. bu mu am jom bu mu war am jom la. mu fay leen ko mu fay leen ko. loolu mu ne loolu nag. diisu ko kenn. mu ne diisu ko kenn. ku dul suñ borom mii dafa mu ne ku dul suñ borom mi dafa ko dindi. ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Touba. loolu moom loolu rek la loolu rek ñaan. mu ne loolu rek la ci ñaan. bor boobu mu leen mu ne bor bi mu leen ameel. day ñaan ci barkeb Serigne Touba. day ñaan gàtt nañoo ak tawféex. yàlla gàtt nañoo ak tawféex. ba mën leen ko fay ba koo fay. loolu rek la mu ne loolu rek la. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. mi ngi sant bu baax nee na mi ngi sant bu baax a baax. mu ne xolam sedd na. xel dal na mu ne xelam dal na. mu ne yaakaar mit dolleeku na. mu ne jërë ngeen jëf. mu ne mi ngi leen di ñaanal yéen ñëpp nag. yàlla mi dafa ko dindi. tawféq gàttandoo leen ak tawféq. seen mbir yëpp. seen mbir yëpp. yëpp yéwante barkeel seen mbir yëpp yéwante barkeel. li ngeen yëngatu. mu ne li ngeen di yëngatu. defal leen ci barke. yàlla defal leen ci barke. defal leen ci ndam defal leen ci ndam. mu ne loolu rek la leen ñaanal. mu ne li ci des nag. ñoom mi ngi fi. ñoo bokk taxawaay bi. mu ne ñoo bokk taxawaay bi. ci lislaam ci réew mi ci bëgg réew mi. ci defaru. mu jëm kanam. mu ne loolu nag na ngeen xam ne fii ak mi ngi noyyi mi ngi koy ànd ak yéen incha allah mu ne li ci kem kàttanam mu ne dana ko jëfe mu ne loolu ab dig la loolu incha allah ci loolu rek lay ne sama digganteem ak yéen jërë ngeen jëf bismillah